maay présidente bi secrétaire bi mu ngi nii sama wet assesseur bi représentant de la Sénat ak euh, représentant parti politique yi ñaar ñoo ngi fi. non non ñu ci des ñëwaguñ ñëwuñu moom. mais nag seen mandataires yi jaar am na ko fi jaar léegi ah, mandataire u Sonko jël na information boobu xam naa du ya du ñàkk ñu andiwaat keneen léegi ku leen représenté. matériel bi doy na lépp doy na macha allah. vote bi mi ngi déroulé normalement boo gisee statistiques yi. Euh, nombre de votants à dix heures cinquante la nombre de votants à 12 heures 117. non non amuñu jafe-jafe macha allah à part am na ñoo xam ne dañuy am seen seen carte d' identité seen pièce ni bureau numéro 10 boulevard Kër Ñang moo ciy nekk mais suñu vérifier sur la liste d' émargement seen tur du fi nekk. ne duñ mën a voté. Mm-hmm. waaw loolu jafe-jafe la. nit ñi nit amee woon tiit yàlla def na ci jàmm yàlla na continuer nii. amul benn problème ñëpp déterminé wu nañu bi ñu ñëwee sept heures et quelques sept heures et quelques minutes fi lañ fekk ni ñu taxaw rang bëgg a voté commencé guñ sax affichage commencé guñ dara. waa matériel bi yëpp ñëw na à temps man sept laa ñëw mais fekk naa fi matériel bi tax nekk fi ñu jox ma yëpp ma def sama décharge daal di leen delloo sama assesseur yi ñëw waaw sama secrétaire moo amoon tuuti retard rek mais après ñëw na. huit heures huit heures fii lañ démarré waaw. nit ñaa ngi parce que entre huit heures dix heures soixante onze personnes ñoo dugg dix heures ba midi cent soixante quinze kon donc xam nga euh, rythme bi daal baax na macha allah. pour le moment macha allah benn jafe-jafe amul nit ñaa ngi rek normal di dugg bu ñu gisee koo xam ne nii sax ñoom seen biir ñooy mayante ku ñu xam ni taxawaay bu yàgg bi mënu ko wala koo xam ne xëy na mag la. dooy gis xale yi seen bopp ñoom ñoo koy may mu dugg nombre bi ñuy jox day moom a wax comme duñ ko nekk di ko compter bar benn en tout cas moom bulletin yi moom ñoom ñëpp ñoo tolloo cinq candidats yi seen bulletin ñoo ngi fi rangé nañ ko ci Miomi bi ñu waxoon ki jiitu Miomi man la ñu ko euh, préfet waxoon teg nañu ko enveloppe yaa ngi tege waaw affiché nañu li ñu war a affiché ñoo ngi ak suñuy registre ak suñu lépp waaw ku ñëw rek dañ lay wax xamul ñu aidé la pour nga jël sa nu mu tuddati euh, bulletin jël sa enveloppe dugg ci biir waaw waaw daal di voté. fii moom teyagum na si yoon xaw ma waaye fii moom a na si yoon waaw gis fi benn problème boo ñu bëgg lu am laaj yëpp boo fi bàyyi rangom nañ rangi dañu ñëpp ku ñëw boo rangee boo ak ci jàmm dem ñibbi